fii am nañ mobilisation mais nag engouement bi am fii amul c'est beaucoup tard parce que aussi les populations là dafa dafa diversifié wu. vous voyez les gens de Pikine de Thiaroye et cetera fële c'est beaucoup tard kese la moo tax ñun par exemple engouement bi des moo tax ñu ñëw rapproché wu pour ñun am yenn nët yu mën a jëm mais ñun dañu yàgg a dégg sur les réseaux sociaux les télé et autres ñoom waa impact national dañuy daj vraiment mu ñu egg foofu moo tax daal ñun dañu bëgg teer bi na léegi. ñun les gens de Sébikotane bi dañu doon suñu maison daal dëkk ak en paix. est-ce que est-ce que yéen a sensibiliser euh, population euh, Sébikotane bi pour ñoom combat bi ñu mën leen see rejoindre surtout ñi nga xam te ne ñoom impact indirect yi. ñëpp a ji si ci jàpp. benn bopp la man maa fi nekk ma euh, je le porte-parole et le coordinateur de Sola ak yeneen impacté ñu ngi fii si groupe dañu ñëwoon pour assister à cette point de presse mais dama ne Sébikotane ñëpp adhéré ci li ñuy que un an ba tey état bi wax ñu wax ñu leer ñii war a tox seen ko toxuwuñu ñii war a dëkk dëkkuñu boole suñu sàcc sa matériel ñu ne loolu foo koy waxee vraiment ñun dañu nekk dans dans l'inquiétude dañu jaaxle fi jaaxle jaaxle yëpp président la république comme si me répète bind nañ ko. wax ñu dara lu leer ci kenn ku ñu mën a wax ni fi ngeen teg seen tànk looloo tax ñu ngi rapproché wu ak les gens de du collectif national pour ñu bi ngir ñu jàppale seen xeex boobu. pour mooy pour ñu utal ñu ay raccourcis par exemple ñoom euh, ñu yi ñu ñu bañ ñu bañ ci daj daal ñun vraiment mu xool ñu fan la ñu parce que li ñu naan ki la jiitu si nekk lëddëm moo la wax fi ngay toogee. ñun boo gisee ñu rapproché si ñoom ñu teg ñu sur les rails mais ñu leen di gërëm di leen sant si mel ni Ibou Fall ak ñu mu àndal te vraiment gis naa ne ay jàmbaar dañ te ñun looloo tax ñun togg pour ànd ak ñoom li ñu wax def na ko incha allah ñu